saa waay lu ñu jàppoon dañ koy bàyyi mais xoola buñ ci jógee ca dëj ba après foofu la ñuy mujj buñ ne ba nga naan ay eh waay artiste yi ak ñoo bëggante xool ndeysaan ki yaram ba daw na xoola xoola fii la ñu mujj xoola ak cim xoola da xool rek waaye nag bu doon maay moom dinaa jël samay matuwaay yaay jël ay mesures yu leer nag ce qui est nag adduna bi mooy ñu jël suñuy mesures te je te le jure ku rek la am ay chaussures est-ce que ce surveillance ça va être dur waaye jëlee say mesures yee il est temps de say mesures nag ndax yow li nga doon ñoom nangu luñ la ko de waykat yi genn wàll gi yëpp kenn nangu la ko de billahi am na ñoo xam ne ñu ngi la ëmbal ay bomb ki xeeja ki paaka ki poids ñaar yoo xam ne bu lay jëb di la ko xëpp booy foo leen fekk bu invité ci plateau yi di leen interviewé sax da nga naan est-ce que kii nit kese la nit simple booy bu ñuy wax da ngay xam ne ñii simple ñu booy ñooy gën loué ay appartement yoo xam te huit cent mille la xoola di ko fay gedd gedd sa kër baay ak sa kër ndey ruus ngaa dëkk sa sa kër baay ak kër ndey gay ah nga sax jël si booy dem programme di ñot loo xam nekku ci yow di ko di ko di ko di ko dóoree fans yi quoi booy rek leen amagu leen dara simple leen lan mooy oto boo waree am oto dinga am oto booy lay rappi rappi nii bëgg fey def lu kenn deful loolu daa mën a ne ah say bàyyi na ci aar bi boobu ba léegi amaguñu mege nga bëgg a ñëw rek naaw yow booy bi ku yëg ku ko xool ku ko seetaan sax avion lay ñaan léegi yow xam leen booy bi boo xoolee booy bi xam ne booy bi simple te booy bu mën a fecc la booy bu am talent la am avenir bu ref bu réglé <laughs> bu réglé ngeen gis lu ne benn voyage nga fi voyagé benn maire da coupe maire danseur nga fi jël defe ne yaa poñe fecc mi booy rek leel booy gisan nañ fi fecckat bu ne fecckat dañ doon fecc ba naaw booy boobu ba léegi ñu ngi stand by rek lay jàpp seen ñaamur yàqamte wuñ dara yow booy nga yàqamte ñëw barki démb bëgg a dawal oto booy defal ndànk njàpp moom ku ñu war a jàpp la ni ko ràpp ni xarum tàpp ndax booy bi dafa sob ba pare booy bi bëri na tiitar mën a melestiku di ñodd lu nekkagul ci moom booy xale bu ndaw nga demagoo fenn aar fayagu la sax mais nangu dafa jël cëru bañ booy nangu leen benn star moo am Sénégal googu Appareil Ndour seen génération boobu waale la li mu am may ko boppam yàllaa ko ko may yàllaa ko ko def nit na da ngay nangu ndogal noppalu nga bañ ko sonn. xam nga sénégalais yi yéen ay yokk wax yéen ay yóbbu wax fa mu àggul gis nga aar bii ku wéet di nga xam kuy sa bàyyi di nga xam kuy sa ndey yaa ngi dégg. parce que affaire yi nangeen ngeen ma baal sax ci kàddu yi affaire yi may bëgg a soof fii ku ne xam nga sa bopp xam nga sa moroom mit boo wéetee di nga xam ku fi jaay complexe nag ak di réeral say fans yow la rek affaire yi moom jarul ñoo di dara jarul xëcc jarul xiiru jarul def yu fi gaynde jarul simb réglé leen fii xamante nañu du ci ay wax mu ngi mel ni Papa Ndiaye coppet ñëwoon tey rek ne daam seen sama fils la amul problème dama ne nangu fils am la parce que Pape Ndiaye Thiorba yàgg naa ko déglu di ko bëggee avant ma wax nit ñi di ma xam wàññiwul dara mais tey anamu lañuy wax Papa Ndiaye Thiorba di wax daam seen. da ngay dox ci sële ba yoon fekk fa ay nen fekk fa ay guro yu ñu dem puso fekk fa sondel bu ko jiiñ kenn artistes yi la artistes yi ñooy def yooyu bu ñu leen digalee sarax ñu jox ko taalibe yi nag xoola xoola au leen jox seen doom yi sarax yi leen wax mais taalibe yi lañ jox taalibe bu romb ñu jox la ginaar bul jël taalibe bu romb ñu jox la euh, feuille blanche bul jël yéen senegal yéen laay waxal gis ngeen bu ngeen dof dof lu ba yàlla tee boppam ci di ngeen xam génn loxoom ci yéen billaay di ngeen xam juboo leen nekk benn boobu léegi yàllaa ngi wax ngeen bañ du ngeen juboo waaw dem leen rek soxorante gi seen biir laa xamul lu mu doon ku ci nekk wala boo toggee naan kii sama xarit la rawatina artistes yi fekk du dañoo foo du dëgg ci ñoom du dëgg lu lay wax ak la ñuy def du benn yéenante wuñu jàmm ku ci nekk yaa ngi bëgg sa moroom dee fi ne nii yéen rek la leen yéen fans yi ngeen di nax rek billaay fans yi ngeen di nax rek di leen di leen gëlëmal nii <laughs> non gars yi gëmuñ dara. Wally comme def lu baax la la ñëpp xamee solo maa yow sax xamu nu may def woo ko INSA PEC yëkkati oto bu rafet may ko comme yaakaar na ko ci yow may ko oto du la wàññi dara bul déglu kenn. yëkkatal oto bu rafet ni ko am boo ko mu ci mën a tegal ay koppar sax tegal ko ci ay koppar waaw yàkkamti na nag dama bëgg mu dal te xam ne mën naa am lu ne xale la mën naa fekk am na feeling waaye dafay yàkkamte mën a merastuku mën a tiitaru booy bi booy bu amul oto te mu dee waali mayeen kii oto leneen li ma ci yokkaat mooy comme demee na ba demee noonu waali defal sa manin rek comme yaakaar na ko ci yow jëlal oto nga may ko ndax bu dul dara rek maanaam jox na la cër boo xoolee na mu yéegee ci kaw seen ba di wax ak yow sax kersa la amoon kon nag wutal oto bu rafet nga jox ko bañ a déglu kenn nga may ko oto mu koy dawal yaa ngi dégg jàmm ne ñooy nga fay coow li fayal coow li waali fayal coow li jëlal oto nga may ko mu koy dawal xolam neex xolu ñëpp neex nga fay coow li ndax loolu lañ la xamee njàpp nag na nga wàññ sa galaj ñu jam la nanga nga réglé booy nanga nga dal booy wàññil capax-capax gi booy rek leel booy yi même boo amee oto sax na xool fi ngay daw xool ni nga koy dawalee wuti permis balaa nga cee yéeg ñaan lu ci yàlla nañ la may oto ci kàttanu yàlla sunu loolu yàlla nañ la may. leneen li ma ci yokkaat mooy comme demee na ba demee noonu waali defal sa manin rek comme yaakaar na ko ci yow jëlal oto nga may ko ndax bu dul dara rek maanaam jox na la cër boo xoolee ni mu yéegee ci kaw seen ba di wax ak yow sax kersa la amoon. kon nag wutal oto bu rafet nga jox ko bañ a déglu kenn nga may ko oto mu koy dawal yaa ngi dégg jàmm ne ñooy nga fay coow li fayal coow li waali fayal coow li jëlal oto nga may ko mu koy dawal xolam neex xolu ñëpp neex nga fay coow li ndax loolu lañ la xamee njàpp nag na nga wàññ sa galak ñu jam la nanga nga réglé booy nanga nga dal booy wàññil capax capax gi booy régleel booy yi même boo amee oto sax na xool fi ngay daw